RFM matin 8h jot na El Hadj Assane Gueye ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj waaleykum asalaam Hadj Babacar ñu ngi leen di nuyu mbokk yi rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp activiste bi di Kémi Seba yëkki kaddu ginnaaw bi ni ko wàññee fii Ndakaaru eh, ci page Facebook am mu ni eh, keroog ci aéroport international Blaise jaañ dañu ko fa doon mitital ak eh, daal di dal ci kawam bay lu dara président Sall ak ministre intérieur am Aly Ngouille Ndiaye kaddu yi njabootu Guy Marius Sagna ci bët Saalumu Sénégal ginnaaw jàpp seen doom Guy Marius Sagna ab ngi ci kaso bi Ndakaaru Ndakaaru euh, ñom gisuñ né euh, yoon wanu jaar la yëf yi ba téye ci kasso bi yu jaar ci yoon la euh, détention arbitraire la njaboot gi gis walu xibaar bokku na ci tiitaange yi ak ñi nga xamanté ñoy pétrolier Sénégal ci jëm ci génnuk kii gën a ràññiku ne actionnaire ci kër gii di sar ñuy am yakar ñu am jortu gu ñaaw ci walu approvisionnement di jotinu pétrole bi nga xamanteni moy brut bi di binu nu segg gul xibaar yi bokk na ci mbokk chrétien yi tambali tay ji senu karem koor gi diram ñeent fukk ci fan euh, gën a jublu ci sunu borom jaamu gi toroxlu naka nonu defal nañ leen reportage ci paroisse Saint-Jean l'Évangéliste bu Sédhiou sport gi dinañ ci and ak Youssouf Bodian wàllug euh, chronique culture bek Anna Mamadou Mouhamed Ndiaye ci yéenekaay yi Abdoulaye Diop ci technique bi lu ëpp fan ginnaaw waññikoom fii Ndakaaru ca aéroport Blaise Diagne Kémi Seba activiste yëkki kàddu ci page Facebook am jàpp ne keroog ci aéroport dana ko doon mititi la ko agressé daal dina it dal ci kaw njiitu réew mi ministre intérieur am Jo Marone fitna biñ ko fitnal ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass Kémi Seba wax ko ci Facebook mu ne dañ ko doon jéem a toroxal te bañoon rek ñu atee ko ci gannaawam moo tax mu ñëwoon fii ci Sénégal ngir mën a defendre boppam ci procès bi. bi ma egsee ci aéroport bi rek laa fekk fi ay police di ma xaar ci euh, njiitu commissaire Faye ñu jot euh, ordre commissaire Mboub ñu ne dañ ma euh, tere pour ma teg sama tànk fii li ko waral nee na nit ku dangereux la ndax damay menace ordre public. Vous n'êtes pas activiste bi yokk ne dem gis avocaam dañ ko ko xagn j'ai dit je demande à voir mon avocat. ci la laa leen wax ne kon faw nag ma giseeg sama avocat faw ma ak mom ñu ne ma amo droit bobu da ngay des fi ndax dañ la wara a do fi egsi ngir ma ak sama avocat sax dañ ma ko de voir son avocat. cela m'a été refusé. njiitum ONG urgence panafricaine ne li ko gën jaaxal sax moy ay doomu Afrique ni mom ñoko def li mu ci police. lorsque j'ai refusé d'embarquer j'étais assis m'avait pris biñ ma buggee deloowaat foofu ci avion ba di ma embarqué dama lànk fekk nag ma toog ci suuf noonu ñu jël samay tànk daaneel ma di ma maltraité ñëpp xam nañ ne man bëgguma mbirum fitna te yàlla xam te sama bëgg na xeex ak ñoom ñu def benn ak benn rek mënaluñ ma dara dañ ma fitnal ndax rek dañ bëgg woon ne tekkuwuma dara Kémi Seba jot a fale ca Belgique ndax foofu la jóge woon activiste bi yokk ci leeral ne ñaawte biñ ko teg duñ ko bàyyee nii Jo Maroon activist beneen euh, Guy Marie Sagna RFM demal leen ci njaboot gi ci etomi ci Casamance ñoom nag ak njaaxle bàyyi ji rawatina rakk yàq ñi nga xamante ñooy xarit yi mu ànd bokkal FRAPP France dégage jàpp ne euh, tey gi boobaak léegi ci kaso bi ñeel Guy Marie Sagna du te gu dëppoo ak yoon Lamine ba ca étomé di fa Guy Marie Sagna fekk baax ci Casamance. ak magum bu am lu weesu juróom-ñetti fukki at la ñu fekk ci biir këram mu yëkkati ay kàddu guléet woñe na xar bi nga xam ne moom la amee ci teg loxo bi nga xam ne nag def nañ ko doomam bii di Guy Marie Sagna Célestin Sagna koy lu c'est difficile pour moi en tant que père de famille. Maintenant, na na si trop na bi trop si man. ni ko loxo ma ko dundé man rek mako xam bu bi nga dal na c'est son père. sa mère est Majorine Sagna rakk la bu góor ci Guy Marius Sagna moom nag nee ne mënuñoo comprendre Guy Marius Sagna moom kese jamono ji des ci kaso bi ci jamono ji nga xam ne nag ñeneen ñi bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen i kër ñun dañoo bëgg ñu bàyyi ndaxte bàyyi nañu ñeneen ñi ñëpp def nañu lépp nag ngir Guy Marius Sagna ñu bàyyi ko waaye ba léegi ñoo ngi tànkam la mbir mi nag kumba am ndey ak kumba amul ndey lay nirool buñ sukkandiku ci ay kàddu Christophe Manga moom mën ñoo nekk juróom-ñetti nit ñu bàyyi ñeneen ñi ñëpp mu des moom kese ci kaso bi lu tax loolu loolu ñun mënuñ ko comprendre. nous pensons que les palaasam nekkul ci kaso bi ndax combat bi nga xam ne mu ngi koy amal askan wi am na solo kàddu yooyu rakk bu góor bi moo ko yëkkati di Mathurin Sagna ba tax na ne lii dal magam bi jamono ji ab mettit bu rëy la ci moom. c'est un défenseur c'est un avocat c'est un défenseur il défense le Sénégal. avocat la ci Sénégal méritéwul nekk ci kaso bi wax leen dëgg rek kontaan ñu kontaan ñu fenn. vraiment vraiment on est désolé. jamono ji nag leeraluñu li nga xam ne moom la ñu fas yéene def waaye askan wa yeewoo ci Etomé nee nañu dinañ jàppale ki nga xam ne moo di Guy Sagna ngir nguur gi dégg leen Lamine Ba Ziguinchor rajo futur media pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. mbootaay ak ñi yëngu ci wàllu pétrole Sénégal am tiitaange ci joxin ak approvisionnement ñeel boobu pétrole brut ak génnuk euh, actionnaire bi gën a ràññiku kattanu euh, ci biir kër gi di SAR rawatina ñu ne ba euh, SAR boobaak léegi mënut a joxe lu may xaajab lu nu soxla ci marché bi leeral yi Makumba Bey rocciku gi xaadim ba bu Locafrique rocciku ci Sarr démissionné ci conseil d'administration bi yóbbaale xaalisam bëri na anam yu ñu ko mën a jàngate sénégalais bu góorgóorlu woon ba am fit dugg ci secteur boo xam ni réew mu ne yaa ko war a moomal sa bopp tey mu dem ba découragé wan leen ginnaaw wala itam kañ ak nan la ñuy wute beneen partenaire boo xamante ne ni bu ñëwee la waa benn Ben Laden waxante woon ak waa Sarr dina ci nangoo wéy ak ñoom def ci xaalis ngir waajal Sarr ak Sénégal bi nga xam ne mi ngi ñëw waaye li gën a jàmp nan la ñuy def ba fi mu ne nii li Sarr di liggéey dara du ci taxaw boobu Sékou Fanta Mari Diaité amna ci cim moy vice président association sénégalaise des pétroliers Kenn gi dafa and ak mu génnee ñaari ligne yo xamanteni ni ligne de crédit yo xamanteni benn bi pour jënd brut la won benen bi pour investissement yooyu nag dañuy ragal mu affecté approvisionnement au produit pétrolier ci dëkk bi ñoom association boobu nag gannaaw njàqare gi jot nañ xibaar bu neex bu yàggul ci bor bi nga xam ni taxoon na leen a génn di soññ gouvernement bi ci mu fay leen ko am na société yoo xamante ni lu tolloog xaaj bi fay nañ leen ko am na ñoo xamante ni eggul ci xaaj bi waaye fay nañ leen lu bari waaw ba léegi nag euh, état bi mu ñu desal mu ñu desal xaalis waaye dañoo jàpp ne rek ku la jox ndekki bu la nee dinaa la jox añ war ko koo mën a gëm saar jamono li waa réew mi soxla genn wàll gi rek la mën a defar loolu bu ci actionnaire majoritaire am dolli ko daal koy wan ginnaaw day tax entreprise bi nekk ci jafe-jafe waaye nag mooy entreprise du Sénégal bi nga xam ni li muy joxalante ci xaalis moom moo ko ëppale muy chiffre d'affaires loolu itam tax ba mu war a mën a jot ay offre yoo xamante ne nii dina gaaw signé ak beneen partenaire jërëjëf Makumba ñu daal di dem ci euh, daara yu kawe yi bu ci mel ni université Assane Seck bu Ziguinchor xam ngeen ni fan yi ci ginnaaw SAES e ba fare foofee ñu ngi doon yëglu seeni i naatango bootu ci SAES e nekk Bombay bi yoon ñoo yëglu di ñaawlu ñu ne euh, li nga xamante ni mooy ceetaan gu nguur gi boole ci seen wàllu nekki na ko tawat moo waral ñu dogal ñu ne dakkal lii di njàngale mi ñeel heure supplémentaire yi ci weneen wàll ñu ngi sàkku it ñu jeexal liggéey bi jëm ci restaurant bi war a dalal juróomi euh, doomu aadama université ba ca gënal anami njànginu étudiant yi njiital SAES e Bombay Mouhamed Ngom ak Babacar Diouf. di wax ne nag euh, particulièrement pour fii Bambey dafa am euh, beneen amphi de mille places bu ñu soxla euh, ci site de Bambey bi mais aussi am na ay liggéey yu ñu war a àggale ci site yu mel ne Ngunjaan ak Diourbel di wax ne gouvernement bi aussi da ci war a jublu nu mu gën a gaawee. ci loolu aussi au niveau de Bambey coordination bi mi ngi ñaax di woo ay militants am ñu ñu respecté. Euh, décision bi nga xam ne dañ ko jël fii léegi euh, proposé ko militants yi pour ñu respecter ko mooy benn ku nekk na nga yem ci nga xam ne moom moo moom moom la warlu ak euh, gouvernement bi maanaam six heures de temps par semaine beneen bi mooy diggante bi nga xam ne ci lañ war a jàngale maanaam huit ba midi ak deux heures ba six heures ci ngoon ñu yem foofu di def ko diggante lundi ba vendredi beneen bi mooy euh, boo leen gisee am na ci yenn université yu mel ne euh, Ziguinchor ak Bambey bi ñu nekk am na cours yoo xam ne cours université la mais ñi ngi koy defee ci école élémentaire yi wala ci ci lycée yi te comme foofu bokkul ci université donc li ñuy wax euh, franchise universitaire ñag boobu àggul ci ci école primaire élémentaire yi ak ak ak secondaire yi ñu ngi demander suñu militants yi à ce que ñu rester ci su la ñuy tuddee espace universitaire bi Mouhamadou Ngom bu SAES e euh, ca euh, Bambey ñu dem diwaanu Ndar ak syndicat jàngalekat yeneen yoo xamante ni ñoom mbégte la ñu am ci euh, jàmbat gi boobaak léegi ñeel wàllu dëkkuwaay lu toll ci juróom-benn di téeméeri parcelle di terrain yu ñu leen baaxee foofe ministre urbanisme ak logement jébbal fa kayiti kër ya ñaar fukk ak ñetti syndicat Mouhamed Nabi Sylla gannaaw ba mu doon dellu si bu baax a baax ci plateforme revendicative bu jàngalekat yi tey ji ñu jot juróom benni téeméer ak ñaar fukk ak juróom benni parcelle ci zone d'aménagement concerté nekk ci ngaleel Màkkatube lu ñu mel doon jéego bu am solo suñu dégloo kàddu yu jóge ci Mandiaye Ndiaye di directeur de la promotion des pôles urbains ci ministère de l'urbanisme juróom benni téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay parcelle yu nga xamante ni dañ koo xaati moon ci accord yi loolu la ñëwoon pour jébbal leen ko moo tax ñu ànd ak ñoom ñëw fii ku ci ne dem na ba mën a teg sa loxo ci parcelle am defal nañ ñu si viabilité nañ ko aussi viabilité situation moo ni wax deug yalla kenn du fi ne day ta wala day inondé wala lu mënti doon. xaar bi yag lool suñu dégloo kaddu yu jóge ci Ablaye Diouf mom midi porte parole collectif ñaafuk ak ñetti syndicat yi am ci parcelle yoyu c'est vrai que mbir mi yag na waye nak li am solo moy parcelle yi ñu leen waxon ne ndar mom ngeen am mu ngi nii ku ñew fi xam lañu waxon nek na ñiko momit moom seen xol sedd na léegi nag li ci dess moy manam procédure arbitrage bi dañ koy continuer jox nañ leen seen keuyit won nañ leen seen terrain dañuy tok au niveau de Saint-Louis maintenant ñu dem au niveau des domaines leen pour seen bail loolu nag beneen procédure la. parcelle yu ni mel jàngalekat yi jot ko way juru ndongo daara yi ak communauté d'école bi yaakaar nag dalandi dana am ci secteur bu ni mel RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sylla jërëjëf Mohamed ñu daal di waxtaane diine ji ak mbokk chrétien yi tàmbali tey jile seen ak koor karem gi diirëm ñeent fukk ci fan ñu fas yéene gën a jublu ci sunu borom jaamu gi ak yokkute gënal gi euh, diggante yeneen ni ñu ci war a taxawee leeral yi tukkee ci ki nga xamante ni mooy curé paroisse Saint-Jean l'Évangéliste bu Sédhiou ci reportage yu Max Ecri Kanfani kooru catholique muy fan yu Yeesu Krista dund sa désert mu ñuy préparé feetal mooy topp Yeesu Kirista dund ak moom 40 jours yi le dox nañu bokk ñeent fukki fanu koor maanaam fanu xiifal amal lu ñu duppee pénitence ak ay ñaan ap diir tijji xol yi jubal leen ci yàlla loo xamal curé paroisse Saint-Jean évangéliste bu Sédhiou abbé Yves Manga bu ñu nee dañuy xalaat bañ a lekk bañ a def jëfini ñaaw wante dund ci ñaan dund également ci dimbali sa morom mais ñun catholique yi bu ñu dara raw na loolu muy ab diir bi nga xamante ne yemul rekk ci bañ a lekk wala di bañ a amal yeneen jëfin ñu jàpp ni yu bon la waaye weesu na loolu su ma ko jaaralee si sunu Pape François lu mu ñu digal moo ngi ñee ñaan ngir yàlla ñu dellu si si sunu borom ñu tuub sunuy baakaar baal sunuy morom ni ko yàlla bu ñu sàkk nañu baale baalee boo déggee ni dafa nangu tuub may dafa nangu suufeelu boppam dafay nangu d'abord xam na ni boppam ni moom baakaarkat la loolu pour ñu mën ko dund dañoo nar a xoolaat sunu bopp sunuy waxin xoolaat sunu xol ndax lu bëri moo ñuy taggaloo ak suñu borom ci ñeenti fukki fan yi bokk fidèle chrétien catholique yi war nañu royee ci Yeesu Kirista amee taxawaay boobu ci bépp bërëb bu ñu mën a nekk ci seen dund bi ñu mën a dund ni chrétien nu mu waree dundee ci si àdduna ba ku ñu gis mun ñu ñee mun ñu roy si jëf si jikko wante tamit mu roy ñu ndax si dund bu sell jile si ju Max Euclide Kamfani RFM jërëjëf Max ñuy ñaanal mbokk kercen yëpp euh, lii di euh, kooru jàmm rawatina kercen yi groupe Futur Média leneen ci xibaar poussière bi ak méttiwaay démb ak léegi ci pat léegi mooy météo jàppoon na ne ëllëg ci alxamis ji du ñàkk la ñuy am am peex ci euh, poussière boobee ak i fu ci mel ni Kaffrine nag way juru ndongo yi ñoom dañu ne bu nu sañoon kilifay njàng mi foofee autorité académique yi daal di leen ba ñu téye seen i gune ba poussière bi jàll rawatina bi nga xamante ne ñu bari fa ñoom ci abri provisoire di mbaar fa la ñuy jàngee euh, ñu dem Kaffrine ak Oumar Ndiaye. ni ñu ko déggee ci réew mi noonu la wulee ñaay ci diwaanu Ndoukoumane ak li ko wër mbooyu mutar anda ak ngelaw rax ci ay pépp suuf moo lay gëlëmal soo génne ci biti ay ak abib mbay di firnde lu nu mel moom sanal nañu torop depuis suba ba léegi mënuñoo def dara boole ko ay coupure courant yu bare bare yàq suñu xale yi ñoo ba léegi mënuñoo def dara añ bi sax dañoo obligé wu bàyyi ko lañ koy dooree taal ba 14 heures jotee ngir ngelaw lu bari na ñun borom moto yi sër dalay euh, ba mun bis ni wut seen ñu koy dox ndax ñi ngi liggéey ay gàllankoor lañ ci am ndax ngelaw lu tar li ànd ak poussière ba sax ñenn ñi dañuy kalawu ak a wut ay masque ngir doxal seen liggéey. am nañu ay yëre yu diis nag dañuy kaalu dañu sol verre parce que liggéey yu bu bari foog ñu génn dem. temps yi ñaari fan yi bëri na lool si ñun maçon yi ba lu ñu liggéey sa instant yi mënuñu ko xam ngir poussière bi bëri na lool lool lool. instant yi dañuy yëkkati birig ànd ak moom wàcc si suuf wala saa ñu téye birig mu ngelaw li bëri ñu bàyyi birig mu daanu tey sa gis nga ko tey damaa egg ba si kaw bëgg a daanu si laa mujj wàcc. suma nga xam ne tey mu jàngee si école 2 bi vraiment tey bi ñu wàccee dama ñoom ci ay mbaar lañ nekk dama gis mu ñu poussière poussière gu nga xam ne dafa jéggi dayoo loolu nag dafa laajoon vraiment ñu arrêté gune yooyu nga xam ne ñu ngi ci mbaar yi. ngelaw li nag ba léegi dakkagul fi ci doon Ndoukoumane. ndax ci dolli huit heures ci suba ba quatre heures ci ngoon benn courant amut Kaffrine ndax ngelaw lu tar rawatina koo ci gis ay yéreem mi ngi pënd. rawatina tout tànk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci école yi dugg doom yi daanaka ay jafe-jafe rek la leen di jural ndax ñoom xamewuñ ci jànj ak joor Kaffrine Omar Ndiaye RFM tàggat yaram ñu dalal yusuf Bodian ma ngi lay ziar Hadj yusuf ñu delloo ziar Hadj San ñu tàmbalee football bi ak yeggaleem euh, huitième de finale aller Ligue des champions européenne. match bu am solo la ñuy xaarandi ca Bernabeu ca Espagne bu 20 heures jotee Real Madrid mooy dalal Manchester City euh, ca France Lyon di dajeek Juventus bu Turin. Euh, démb nag euh, waa Bayern Munich doomu Allemagne ñoo dem ba Londres daan Chelsea ñetti bal ci dara euh, kii di ñabri moo dugal ñaari bi Lewandowski ñetteel bi moo ko dugal Naples def match nul ak FC Barcelone ku nekk benn bi nga dugal sa xom Mertens di doomu Belgique moo njëkk dugal pour Naples Griezmann doomu France égalisé pour waa FC Barcelone Kalidou Koulibaly doomu Sénégal bi bokkuloon ci match boobule li ko waral mooy. gaañu gaañu bi mu amoon maanaam problème musculaire yi moo xawoon yeewu waaye ñu am njort ni kon euh, fii ak samedi incha allah ci Serie moom doomu Sénégal bi dina ñëwaat ci compétition yi beneen doomu Sénégal bu ñu waat euh, di Crépin Diatta moom nag euh, ci Europa League la 16e de finale retour yi club bi di club Bruges dem fële ca Manchester United bi yoon bokk na ci match aller bi. Krépin Diatta kon da ko euh, wuute woon ndax gaañu gaañu bu mu amoon Alaaji Assane football ab jigéen ñeeg tournoi UFOA A euh, li nga xamante ne mooy doomu Sénégal yi nag nañu tàmbalee baax na. dëmb dañoo daan ca Sierra waa Guinée benn bal ci dara Awa Jaxate moo dugal benn but bi am ci match boobule ndoxteel bi baax na naam waaye euh, faaw liggéey bi wéy li kàddu sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé. waaw d' abord ndam li parce que dugg ci compétition bu mel nii njëkk gagné lu am solo la. et puis xamoon nañ ni ce euh, match ñu Guinée du yomb parce que li ñu xam si ñom euh, équipe bu am agressivité la bu am individualité physiquement aussi nous taxaw donc euh, mais ñun def nañ l'essentiel bi nga xam ne but ci première minute ci dix-septième minute déjà après amoon ñu yenen occasion yu ñu mënoon duggal malheureusement on n'a pas eu la chance de le faire donc en deuxième période xamoon nañ ni dinañu yegg suñu kaw c'était n'était pas facile mais équipe bi wane na caractère wane na personnalité xex ci ballon yépp waroon nañ santoon yi je pense que def nañ ko li nga xamni li ni wara a def rek moy remercier leen féliciter leen pour état d'esprit bi ñu indou tay vraiment guerrière nañu dafa am match yo xamni li lii la laaj parce que beaucoup terrain bi permettre football Sous condition yi kiiwul lenn mo fi des xex xex nañ ko je pense que suñu footballoon ci beneen terrain dinañ am peut-être beneen match mais tay li nañu am il faudrait que nous bañ am ben excuse ñu xex lepp ba mu jeex parce que seeni mbon natango jigéen nañ koy bokkal ci terrain bi Mamoussa Moussa Cissé kon ci micro suñu natango yu euh, cellule communication bu fédération sénégalaise bu football jàppale ni kon Sénégal dans na Guinée ci poule bobu di poule A Sierra Leone ak Cap Vert 0-0 lañ def. walu boxe ak tournoi qualifié guinéen olympique yi euh, njeextalu parcours sénégalais wa waaw ndax Karamba Kébé ak Khadija Timéra ñoo ci déssone ñom démb tamit dañ leen éliminé ci premier tour bi manam légui juroom sénégalais yi bokkoon ci tournoi boobule dañ leen génnee ñoo ci ak suñu ndaw ñu fofu lé ci Dakar Arena di Sona Thiam. Senegal amul chance ci ya ca Dakar Arena mu newoon benn boxeur ci sélection bu Sénégal Khadija gannaaw ba mu ñàkkee ma ngi ñuy xam lekk la daj ci jongante gi. j'hésitais parfois à tout lâcher. combat bi sax dem naa ba ni dama koy fekk ci si lu mu bëgg maanaam xeex gi mu indi mais dama jéem a si yàgg ma ni déet ji dama ñëw indi boxe technique kon nag loolu lay wane même bu fekkee sax ñàkk naa te moom sax ni muy boxé booy dóor kay coup bi dafa war a yow wala sax ci crochet waaye moom da doon sëgg tout le temps yenn saay sax doomu ma woon xam fan lay jaar loolu daal yaakaar ni moom moo taxoon euh, combat bi metti compliqué à gérer. Euh. avocate boxeuse bi nak dal dina ci profito ngir dal di wax la nga xamni mo nek ci xolam ñaar autorité yi ngir suqali basketu Sénégal. on a un manque de soutien vous voyez les tribunaux. amul kenn ku ñu jappalé gis ngeen tribune amul kenn ku ci nek bu ñuy dem Jeux africains tamit non la yeen say sa visa ay kenn du ko fay ci aéroport yi nañuy nekk di tambambalo te bu ñuy génn sax dañuy laqatu ndax yeneen athlètes yi dañuy ñew ak seen drapeau ak seen maillot ñu leen di tertu way ñun duñu gis kenn waaw ngeen yaakaar ni lolu ay conditions yu baax la ngir ñu mëna def ay résultats yu baax tout ça je suis à l'hôtel je suis bu dee Khadija mom dafa daal joxagna baram ñi nga xamni ñoo di autorité yi Karamba Kébé mi nga xamni mom moom dañ ko daal éliminer mom yeyul yàbbi ci autorité yi du lépp lay tek ci kaw autorité yi wajal na sama bop bu baax kon du ñak préparation sama adversaire peut-être li ma baye ko tay motax mu daal may gagner tay doxul waye xeyna benen yoon dina dox jamono ji nak amul benn boxeur sénégalais bo xamanteni amna ticket gu koy yobu ci Tokyo amna ci nak ño xam xamante ni dinañ dem uti ji war sen chance ci tournoi bay am ci Paris fa nga xamanteni ñi ñak ñëpp tukkee ci juroomi continent yi ño fay dajé daje. jaajëf ci am kon euh, Sénégalais tok nañu wayé tournoi bi dina wéy ba le 29 euh, février fi ci Ndakaaru mu euh, mujjantal ga kon fanweer ak ñetti boxeur Afrique ñooy qualifié directement ngir dem ci Tokyo 2020 lu jeexale ko ministre des sports kàddu yi mu yëkëti wax ni lu yagul nañu am fédération des sports scolaires et universitaires nee kon ñu ngi ci liggéey ci mbir mi am na yaakaar ni fi ak avril kon euh, loolu mun na taxaw mun na sotti kon Matar Ba yëkkati kàddu yooyu ci ñetteelu édition mi euh, jox ay raaya kon sportif yi nga xamante ne ñoom la jàpp ni ñoo gën a ràññeeku ci at bi te suñu naataango yu sport 221 organisé ko kii di euh, sunu naataango di Amédine si nekk ci bopp ga Amédine mooy lu gàttali <laughs> <laughs> ñu koy ziar dama koy tooñ yoon wi tam suba dafay sport ndax mm. président CNG bi incha allah docteur Sarr la nu ci àndal. coow li bëri na lool. CNG bi yow yow loo gis dañ ko war a tas <laughs> wala. wala ah, <laughs> mbëri nga àndal wala docteur Alioune Sarr ah daal yàlla yàlla su ma fi jëlee <laughs> lay lay yuy loolu laa dégg mu wax sax mm. waaye ah doy na waar daal. doy na waar kon mu nañ ko koj jeudi. dina leer incha allah. mbër bu ci am laaj mën nga woo Ablaye Diop jërëjëf. chronique culture beeg soxna Ana Rocha maa ngi leen di nuyu mbokk yi ay artistes ñoo jëkk ngir delloo njukkal président poète bi dem ci yàlla Léopold Sédar Senghor looleen ñu jaarale ko ak concept bi ñu dippee euh, Senghorium ngir euh, récompenser bépp artiste boo xamante ne day wëyal li fi Léopold Sédar Senghor bàyyi Abdoulaye Diop ci yeneen i leeral. mu nekk ab delloo njukkal jëmee ko ci ki fi nekkoon président poète Léopold Sédar Senghor te artistes yi di def li ni mel jaaree ko ci lu ñuy tuddee Senghorium Joseph. Joe Senghor artiste yi plasticien di ki teg boobu lépp xew-xew. Senghor ba mu ca nekkee moom presque président la woon mais ministre de culture la woon boo génnee Vienne génnee Paris Dakar Ndiaye moo ñëw taxaw parce que am na festival mondial des arts nègres donc lu bëri yooyu yëpp Senghor moo ko defoon fii donc ñu bokk dellu njukkal euh, chaque année dañuy daje def dara pour kenn ki nga xam ne def na dara lu bëri ci Senghor ñu daal ko jox benn raaya bu président bu jeune lébu yi. suñu gerte jaar ak lébu yi taraanga buñ ko lebaloon te mu fay ko. Cheikh na jaam maag lébu yi benn mu fiy jógee. musul reelo ak ñom Senghor jëlul suñu suuf. yaqul suñu alal. fitnaalul suñu njaboot. bundu xataalul ken jamale fi nekke woon. ay conférence ak i vernissage dinañu fës loolu ci édition bu njëkk bu Senghorium nga xamanteni prix bi dinañu ko jox Gabriel Diakham nek doomu po Joal gaawu ñaar fukki fan ak juroom ñeen ci weeru février. juroom benneelu édition festival international sonique euh, jeex na atum euh, 2022 la amal Benen édition ca Shot ca réew Mauritanie Mebedbi bi batay modi gëna di euh, boole askan nga ñoo espace CEDEAO bi Ndaté ñibisina mu ñuy cérémonie de clôture B. ci anam ci la Banjul daal di jébbal lenge yi Nouakchott di réewu Mauritanie ngir mu dalal édition festival international soninké ci atum 2022 waa FISO di xamle ni lu mooy yëngu-yëngu yi ci wàllu aada ak cosaan kuréel gi mën nañ ko méngaleeg CEDEAO bu askan yu dendu Afrique soowu jant docteur Abdourahmane Silla nekkoon jawriñ ca réewum Mali moom moo jiite association soninké bu nous avons pensé aussi créer des liens. samp nañ lu dëgër di maanaam jokkalante gi ci diggante opérateur yi fekk ci Sénégal ci Mali ci Gambie ak yeneen réew yi loola buñ ko doxalee te wéyal ko day ni FISO def na jéego yu FISO avance d'un mel moom Gambie am papa Mohamed Moussa Ndiaye moom moo comité d'organisation ci FISO bu Gambie. FISO am lum jur te ko People's ECOWAS man li ma waxoon ma ne as long as we follow the boundaries of la nekk Mali fi la ko toppee duñ ak kuréel yi nga xam ni samp nañ ko mu di banque bi académie bi wala sax siège social bi nga xam ni war nañ koo samp ci Gambie Soninké Dendi bi jàpp ni li ñu duppee intégration ci wàllu peuple mën nañ ko lawal. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ñeel aada ci RFM.